su fekkee abonné go cliquer bind bu xonq biñ bind s'abonner nii soo cliquer ba pare gis nga am na cloche bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi soo ko cliquer gis nga ñetti cloche mooy génn nga cliquer ci kaw fiñ bind toutes les notifications comme nii soo ko defee abonné nga ci kanaal bi activer nga notification yi lan moo ci des bala ngaa dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko wane ni aimé nga vidéo bi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 sooy répondre YouTube dafa su détecté euh, réponse bi am na ay mots yum ci bind mën na la wax bindal ay ñetti tontu yu bokkul ban nga ko si war a tontu muy pour mu gën a gaaw booy répondre waa li sëpp nag day nekk YouTube da koy détecté boo defee nag euh, commentaire boo xam da nga ko bind en wolof kese nga bind ko ci wolof yi léegi YouTube mën na bañ a détecté lan nga bëgg a wax bu ko defee du du suggérer mais bu xamee li li nga wax ci ci commentaire bi mën na la suggérer mën na suggérer borom vidéo bi réponse bi mu la war a jox Euh, léegi ñu dem ci commentaire yi comme boo ñëwee toujours comme niñ koy xamee tableau de bord euh, YouTube Studio boo ñëwee commentaire bu la neex tam ba léegi mun nga wàcc fii muy fii mu la defal dernier commentaire yi fii boo xoolee suuf toujours defal dernier commentaire voilà commentaire yi nga xamante ni ñoom lañ mujj def ci sa canal te répondre ko mën na am aimé nga ko yooyu mais répondre ko yooyu la lay defal fii boo ñëwee fii tam mun nga ko ñëw sélectionné ba léegi ci li nga xam ne mooy section commentaire bu boobaa fii ngay ñëw nga cliquer commentaire boo cliquer commentaire léegi nga filtrer ko bu dee commentaire yëpp dafa jaxasoo yoo répondre yoo répondrewul fii ngay ñëw filtre bi nga filtrer soo cliquer fii nga ñëw ci suuf état de la de la réponse maanaam euh, ndax am na tontu wala amul tontu nga cliquer fii léegi mu indi la beneen tableau mu demandé la je n'ai pas répondu j'ai répondu maanaam tontu naa wala tontuwuma nga ne yi ma tontuwul laa soxla nga cliquer fi coché fii appliquer voilà. gis nga message yi mu lay indil yëpp yoo xam ne la yow defoo ci ay réponse waaw am na yoo xam ne ci nga aimé naa ko parce que ça dépend ci vidéo bi fii na li tax nga jaare ko fi am solo mooy du du par exemple tey ba la defal notification euh, euh, commentaire nga cliqué ko benn vidéo la lay indil commentaire yi si nekk yëpp la la indil mais boo ko jaaree fii sa vidéo yëpp la lay indil commentaire yi si nekk voilà vidéo yëpp la ji nga vidéo bu jeex mu indi beneen gis nga vidéo bu xool yi nga war a tontu yi nga war a tontu léegi euh, réponse suggérée bi mooy lan léegi ñu wàcc xool ba xam ban am na ko fi voilà mooy bii gisoo léegi kii boo xoolee dafa def macha allah merci beaucoup loolu la def comme commentaire léegi YouTube indil ma jika ñetti réponse suggérée maanaam bu def di de rien avec plaisir merci à vous léegi mu xam ma ban nga ko si répondre voilà mun naa ko cliquer fii merci à vous di nga boobu laay répondre def réponse gis nga réponse bi dem na merci à vous moo nekk réponse bi boo xoolee la moo tax YouTube defal ma ñetti réponse yooyu parce que euh, commentaire dafa dem macha allah merci beaucoup YouTube merci beaucoup bii la détecté moo tax mu indil ma ñetti réponse yooyu su fekkoon dafa def macha allah kese bàyyi noonu YouTube mën na bañ a xam lan la wax du mën na bañ a suggérer parce que boo xoolee fii nii ji nga waaj li mu bind fii ji nga bii commentaire bi ji nga YouTube deful réponse suggérée ah, parce que comme commentaire dafa xaw a gudd YouTube na comprendre li mu bëgg wax suggérewul benn réponse mais soo defee en merci ak yu demee noonu merci beaucoup affaire yu demee noonu dafay indi réponse suggérée parce que loolu dafa gën a yomb pour mu comprendre ba pare te phase test la nekk muy phase bêta maanaam phase test toujours dañ ciy dugal ay commentaire par benn par benn fur et à mesure muy dem ñu koy yokk muy détecté euh, gën a sensible ci commentaire yu gën a bëri nga bu ñu wàccee fii ji nga kii def nga nice frère la def ji nga defarul réponse suggérée kii nice se la def ji nga defarul réponse suggérée yi nga bu ñu wàccaatee gis nga kii nga am da ngay def def merci beaucoup yi nga def na réponse suggérée comme fële euh, de rien avec plaisir <laughs> merci à vous voilà gis nga bu détecté daal ni yow da nga remercier kii kii bi mun mun na def réponse suggérée yi nga fii waajal mu def merci encore la def voilà def ay emoji gis nga mi nga réponse suggérée mu def de rien avec plaisir ak bii mu wax mu tàllal loxo mel ni kuy nuyoo benn emoji boo xam ne comme kuy nuyoo la mun naa ko defal bu cliquer boobu nga def réponse voilà gis nga dugg na voilà comme nii lii mooy réponse suggérée voilà mun ngeen ko di utiliser parce que day pour rek mu gaawal la li nga war a tontu la quoi waaw mais dafa nekk rek phase bêta def nañ ci vidéo nii mais phase bêta xam naa temps bi lu muy gën a dem YouTube dina ko gën a améliorer ba nga xamante ne en tout cas fekkee commentaire bi dafa nekk daal en français wala anglais wala làkk yi nga xam ne YouTube tenir na ko en compte ci ci traduction bi bu ko defee moom dina la indil réponse toujours yu gën a yu gën a matale voilà mais pour l' instant ji nga réponse suggérée bi parce que dafa ko xaw a gàttal ji nga kii mi ngi def merci beaucoup c' est très intéressant ji nga mu def fii euh, merci à vous merci bien avec plaisir mën naa def merci à vous voilà di def réponse waaw exemple voilà gis nga dem na gis nga réponse bi ñëw na mi ngi nii voilà lii mooy li nga xamante ni mooy euh, réponse suggérée moom YouTube moom la yokk bu yàggul ci li nga xamante ni mooy euh, commentaire yi am ci biir Euh, YouTube bi waaw euh, léegi xam naa vidéo bi du du guddul nag solo rek lañ ñëwoon pour wax ko nit ñi pour ñu xam ko réponse suggérée bu ñu ko gisee ñu mën ko xam xam naa dinañ ñëw def benn benn vidéo tamit ci li nga xam ne mooy première yi première boo dugalee benn vidéo euh, def ko def ko première am na beneen option première bu mu lay demande xama xool fii ba xam dina am vidéo bu ma ko fi mën a xool non non malheureusement amu fi vidéo bu ma ko mën a wane voilà mais bu ma dugalaatee dina dinaa dugal benn vidéo spéciale am pour loolu la voilà mais vidéo bii di ñëw nag euh, bi nga xam mooy topp si bi peut-être ñu def ko suba incha allah ci lan laay ñëw matériel pour youtubeur waaw photo bi ngay gis nii vidéo bu nekk ci youtube la borom daf def ni matériel yi ñooy matériel yi gën pour youtubeur keneen dugal bii tam ngay gis nii beneen bu keneen dugal la ne matériel bii moo gën a baax pour youtubeur voilà bi itam ngay gis boobu tam beneen youtubeur moo ko dugal waa bëri na voilà ñu yem ci ñett yooyu rek voilà bëri na bu yu bëri la euh, ay nit ñu bëri ñuy dugal ay vidéo ci YouTube di wane ni youtubeur matériel sàngam la war a am léegi nag ñun dinañ ñëw tam joxe suñu point de vue pour bu ko fee ñi ñuy suivre ci YouTube bi waaw ñu mën ci am ay éclaircissement waaw ñu mën a xam daal affaire yi léegi-léeg ni ko nit ñi di diisale parce que léegi-léeg booy def benn affaire ci benn affaire booy jàngale benn affaire waroo suuraale sa bopp kese parce que yow peut-être ngay def vidéo YouTube am nga moyen wu jënd euh, caméra réflexe mooy caméra Canon yu am doole yooyu quoi caméra réflexe am nga possibilité jënd ay euh, live box live box mooy mooy éclairage yu mag yooyu gars yi di teg euh, mooy photo bi ngay gis nii voilà euh, réflexe tam mooy photo bi ngay gis nii live box moo nekk à droite réflexe moo nekk a gauche pour mu gën a yomb pour nga xam ko yi youtube yi youtube yi dañ koy utiliser yi nga xam ni peut-être am nañ moyen wala yu demee noonu pour muy den mais ñu ngi ko jëlee ci ci studio yi studio photo yu mag yi ak cinéma yeeg yooyu voilà léegi nag ñu bari nag adapté ko ay youtubeur di ko adapté di ko jël des fois nag ñoo xam ne bu ñuy wax foofu la ñuy waxee dañuy waxee ñoom ni ñu mënee ni youtubeur yi lii la war a am war na am réflexe war na am ay like box war na am ay euh, micro perché war na am fekk na yow loolu bu fekkee ñu bëri bëgg dañ nekk nekk youtubeur seetaan la kañ la ñuy nekk youtubeur su fekkee ñoom pour ñu am 10 000 francs bu ñu jëndee connexion daf leen def problème nga leen wax il faut nga am réflexe il faut nga am like box il faut il faut il faut il faut da nga leen di bloqué ñu toog foofu di xaar voilà te man si lu ma xam youtube pour nga nekk youtubeur di def ay vidéo youtube ngay ko bëgg a commencé zéro te amoo moyen lenn kase kase kase laa ñaari affaire laa xam ne mënul ñàkk pour nga commencé ko benn bi lan la mooy il faut nga yor téléphone voilà deuxième bi lan la mooy. il faut nga am connexion voilà su ma nee téléphone tamit euh, du obligatoire boo yoree téléphone baax na boo yorul téléphone su dee am nga ordinateur te amoo téléphone baax na l' essentiel matériel benn matériel benn appareil buy connecté wu moo xam nekk ordinateur wala téléphone il faut nga am ci benn il faut nga am connexion point final mën nga nekk youtube di defar ay vidéo yeneen yi si des nag plus le temps di dem sooy am ay moyens nga yokk ay matériel sooy am ay moyens ngay ay matériel noonu la demee moo tax suba dinaa def vidéo boo xam ne vidéo bu indi ay yaatal indi ci ay leeral pour ñu bëri bañ yooyu bañ leen freiné yi ñuy gis si YouTube ñu naan non meilleur matériel meilleur caméra nangam mu bañ leen freiné ñu xam ne yooyu ñu ne mooy meilleur parce que dañoo am moyen wu jënd ko ne mooy meilleur yow caméra bi nga yor pour l'instant te amagoo moyen jënd caméra Canon yow caméra bi nga yor muy sa caméra téléphone mooy meilleure caméra pour yow pour l'instant waaw incha daal suba dinañ ci def benn vidéo bu gën a yaatu si carton yàlla kon fii vidéo bi fii lañ koy yemale ñu leen di remercier seetaan bi nga